di wax ci mbiram gaarasu Mbacké ci département Mbacké bi ci wax ci ci turu. par exemple man ma Mamour Diop vice président bi ci six mois yi jàll. ci regroupement Savoor yi. Moussa Ndoye mii mooy président bi ñu seqoon gaaras bi waa doon ci liggéey léegi nag ci liggéey six mois yi nga xam ne maanaam sëñ bi dafa woon dafa woon consensus pour jox ñu ko six mois ci dale bi ci lañ doon leeralee mbir gaaras bi ci liñ ci liggéey lépp mooy li ngeen fi gis waaw léegi nag. bii loolu amee dem nañ ci préfet préfet xamal ne woon nañu préfet woon nañu nañ ngeen def pour leeral li six mois yi jàll. ñun ci six mois yi jàll leer nañ lépp kayit yi nga xam ne maanaam moom nañ ci gis moom lañ def moom lañ moom lañ leeral ci mbooloo mi waaw su fekkee kayit bi amoo ko tamit am naa kayit bi. leeral yi mooy ci mbiram garage bi li mu doon dundee ak li fi am mooy ci liggéey bi ñu liggéey ñun liggéey nañ ko ci la ñu ngi ko ñu ngi ko jël ci le 10 6 mois 2021 ci lañ jël garage bi ñi nga arrêté le 15 12 mois 2021. ci ñun li nga xam ne maanaam mooy social bi nga def xam mooy mbiram safoor si i problème yi am diggante ci accident ak lépp fere nañ ci trois trois cent trois mille sept cent francs ñu tegaat ci ci mbiram syndicaliste yi nga xam ne maanaam quatorze syndicats yi nekk suñu kilifa dugal nañ cent cinquante mille ci mbiram social bi nga xam ne maanaam moom lañ def ci garage bi xam ne social moo garage ànd muy ko faatu wala ko am problème ci lañ lay jox jox nañ ci six cent onze mille francs ci mbiram versement kees gi nga xam ne maanaam ci liñ fi denc xaalis denc nañ ci un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille yoo xam ne xaalis nañ ko jox trésorier bi mu denc ko ci keneen bi ñu tegaat ci li nga xam ne maanaam mooy personnel yi nga xam ne nekk ci garage bi mooy kër sóor yi ak rago jeer ak lag-lagal yi nga xam ne maanaam garage di dundee garage ñoom gagné nañ ci huit millions neuf cent quarante un mille huit cent boo totalee ci xaalis bi six mois yu garage bi ñu ngi le 10 sixième mois deux cent cinq mille cinq cent kon ci six mois waaw loolu nag loolu nag boo gisee nag boo gisee nag ñu defee loolu ci mbake ci baatu kilifa ci lañ ko doxee ndax dëkk bi baat moo fi dox ndax sëriñ bi am sëriñ Abdoulaye yàlla moo ñu joxoon garage bi nañu dem leen ci ndigal lépp lu ngeen fa fekk yàlla dañ ci def barke xaalis bi nga xam ne maanaam fekkoon nañ fa ñun mooy li nga xam ne maanaam moom bi jaaja euh, sortant bi bi gaañu bàyyi fi xaalis ñun xaalis boobu ba léegi laaluñ ko waaw loolu moom suñu liggéey bopp la xaalis boobu nag desoon na lu mat 4 millions ay quelque 4 millions et la ca fere fere nañ ci waaye fere ba kon boo ko boolee xaalis nekk ay 5 millions et yoo xam ne mi ngi ci kees si ak suñu dépasse. est fal ngeen bureau bu bees. léegi fal nañ bureau bu bees moo ñu taxoon ñëw fii nag waaye dafa am kàddu yu ñu yoo xam ne moo laal suñu deret ndax lim laalee suñu deret ndax ñi fi nekk ñëpp ñoo bokk benn maam ñoo bokk benn baay ñoo bokk ndey ñun nag juumoo noroon yu baax ñu koy soxla ci mbooloo mel nii ndax am na wax yoo xam ne boo xasee dégg dana la ñulug ba tax na la nga bëggoon def doo ko def ba tax na ñun ñi fi nekk kenn a noonoo ci ay xëccoo kii damay contre kii ndax Mbeth Ndoye mii war na ko moom ci àdduna loo waaye fii affaire syndicat dafa amatut li tax amu fi mooy ñoom 14 syndicat yëpp doon nañ benn moom ñoo ndax gis nga tey jëf mel ni ni sa idika def président national bi woo sàmba ni mi nga xam ne maanaam doomam la léppam la mu woo ci digg mbooloo mi joxanteeg moom loxo Mbacké ñun nag ci Samba joxante moom loxo kon loola la ñu gën a dal loola baax na ci ñun. tamit ñun am danañ am suñu ngor ñun ñi tamit ñun ñi xam ne ñooy candidats yi na préfet xam ne ñun candidats yi ñun tamit danañ toog ba juboo ci seet nuñ mën a yore si garage bi kenn ñu ko yàqal ndax lu ñett lu ñaar doon def mu baax su ko juróom yoree day baax waaye du ko bon waaw man foofu laa jàpp waaw. waaw léegi yéen li ngeen am garage bi gis nañ ne euh, dafa bëri ay problème. waaw bi nag euh, euh, kii yéen journaliste yi ñu ngi leen di sant bu baax ndax fi ngeen laal rek ngeen war a laal ndax suñu garage bii kat xam ngeen ne yéen war ngeen ko gis ngeen ni mel bëgg nañoo ñëw suñu garage ndax ñu na ñun war duñ taxaw ci arrêt dañoo gisul garage ba ndax fii nañ ay dafa fi dëkk lu ne fi dëkk dem nañ ci maire nag wax nañ ko xamal ko ne ko suñu garage boo ñu ko defee danañ ñëw bu ñu ko joxee nag may amee ñun ñi ñu defee suñu garage nekk lañu fi léegi yéen lu tax maire defar garage bi ce que wax expliqué na leen moom euh, ndax su ma ci duggee 100 pour cent damay juum ndax man 6 mois laa yor garage bi 6 mois ci lañ doon dox ci 6 yoo xam ne maanaam leer na ma ñun garage bi ñu ko yoroon da danañ ko yóbbu foo xam ne maanaam dañ ko yóbbu foo xam ne maanaam tey ñoon fañ danañ ko yóbbu foo xam ne maanaam fu garage di am danañ ko fi yóbbu ndax xam nañ ni ñuy defaree garage xam nañ ne garage ni war a doxee xam nañ caution garage ni muy doxee waaye nag lii suñ problème mooy garage bi dafa am ci loxo yoo xam ne ko ci teg ma suñu loxo wax te Fallou Mbacké la tool lim dëkk nga jël benn garage jox benn nit ci intérêt boo xam ne ban intérêt doomi dëkk benn lañ am benn intérêt nañ ba garage bi dem nañ ba mandat yi fi doon joxe sëñ Fallou Mbacké mu dafa jël moom waa garage bi 10 pour cent lañ lañ ci daa pour cent dem nañ ba ñi fi nekk lekk amatuñ luñ luñ naan ñoo jëngul bopp xeexal seen bopp fii nar a xeex ak moom ñu delloo leen seen garas kon nag damaa bëgg mu leer ci ñëpp nag te foofu lañ taxaw fa lañ taxaw ba léegi nag bu a rajo Xassida Mbacke jot ci garage bi lañ bëgg 100 pour cent. léegi su fekkee am na maire bu bees bu war a ñëw wala moom mu nekkaat fi lan ngeen koy wax. maire bu bees bu maire bu bees bu fi war a ñëw ak ku fi ñëw am nañ position pour taxaw jot suñu garas ndax dëkk boo dem bu ne transporteur ya fa nekk transporteur ya fa nekk ñi ngi taxaw pour lañ moom ñu jël ko. kon ñun waa Mbacké tamit doomi Mbacké taxaw nañ liñ moom dañ koo bëgg a teg suñu loxo. yéen a bëgg contrat boobu si amoon dañoo bëgg mu niil ndax contrat mënuñ ko jox benn nit ci boo xam ne maam ay junni nit dafa yoyoo ko bokk ci yooyu transport nekk fi ay doomi borom dëkk bi nekk fi ñu jël benn nit jox ko mu bëgg ko jëriñoo di ko jaay di ko jaay ay bitik ah di ko def loolu loolu lañu bëgg mu jeex. dafa war a jeex loolu dafa war a jeex président nag président président ñu ngi lay plaidé di la wax na la kenn ku nekk lam am bàyyi nga course bii laal nañ ko ñu bàyyi course bi nañ laalee course Mbàkke bi bàyyi ko ba coow am suñu garage bi tamit su bëggee jàmm nañu bàyyi suñu garage bi taxaw nañ nag pour 100 pour cent rek pour di suñu garage